wantara mbera koor gee ngi waaj a jeex mais sëñ bi defal ndànk yow bokkoo ci kaaru yëmbal gi de ku la bàyyi nga lang <laughs> waa papaay xale yi fan yi yëpp maa ngi lay woo jotuma la alxames laa reeree petit pois ba léegi sama biir bi di yari yari xam naa dangaa lekkaale doomu poobar yi rek non petit pois bi amul poobar eh kon est-ce que nekkul jimbo bi moo seyul kon defuñ ci jimbo tamit waa léegi moom xanaa suukar lañ ko toggee waaw Koulibaly kaay ma may la ñaareel e eh, accu buñ laa déggee du maa dugg ci néeg bi guddi de capitaine nga di doit montrer un bon exemple takkal ñaareel looy ragal <laughs> waa Cissé Ngari instant bii looy yëg maa ngi nekkaat xale nii ñu may aayo bébé ay waay dugal ma ci aayo bébé gi ah lii nim neexee rek kilifa gi man waxuma ak yow de mais mbugal bi gën a métti ci àdduna mooy doon célibataire <laughs> waa Messi lu xew. Boy mi nekk Marseille moo ma rëkk rëkkaat ma. waa Boy Gueye ban instant la war a rëkkee Messi. <laughs> yow Pape Gueye fan nga jëlee inspiration rëkkaate. ah Pape Diouf moo ne tey la bi. mu ni waa Pape Diouf loo wax. tey la bi tey la tey tey la bi. Messi baalal booy bi rek Pape Diouf moo ne rëkkante bi. xanaa ngeen tegal ma ceebu jën bu amul ya booy. Messi bu fi wax ay ceebu jën waaye tamit nag dañoo wóor ba bi. <laughs>